dugg ci koor gi bëggante amul léegi nag kon xaañu woo. dëgg la koor daal la war a bàyyee. am déet. bu dee ci seytaane ah kay seytaane tënk nañ ko. ma nga fële ca ginnaaw rek di sonn. démb ci ngoon lañ ko tinki kon fi ne tinki nañ ko. fi ne moom ko. fañ ko tënkee la waaw. waaye sëñ Cheikh. Mhm. yooyu nga doon seetlu ci biir koor gi ci audio yeeg ñoom seen yooyu. du seetaane ponkal mi suq yi la. Ah. booyam yi. Uh-huh. booy seetaane. booy seetaane yi les ñoom la fi yebal léegi nag moom tam bu ñëwee mënulul ponkal yi dara ndax moom du ponkal mi suq yi ñooy songu suq yi. Uh-huh. parce que ñiy def loolu ñoom tam du ñu ay ponkal. Uh-huh. am ponkal du weer nit. nit ak ñu ni toll. Grandir bi ne ci mom mhm. nan lay nan lay amé programme dama bëgg wër diw. lu reuy way ponkal du wër nit. dëd du ko man ponkal. ponkal du wër nit. dëgg la dëgg la. ponkal du mer. ponkal du xuloo. message. mais ponkal yi lu ñëw te seetaane. Mhm. inna ibadi laysa laka misaal. Mhm. dëgg la sunu borom ne ko sama ponkal yi mënoo ci ñom dara. dëgg la. <laughs> waaw waaw. ci Cheikh laaj boobu solo nga wax. sama ponkal yi mënoo ci ñom dara mais suq yi tay bu ñu ci lamb ji di bëgg bëri père ibrahim bala wa daan bëri day am ku njëkk bëri waaw petit combat yi def naa lañ koy petit combat na nga ba ak ci grand combat suq ja <laughs> waaw ma seetaane am yo yoo xam lu ko jox deug la ma nga fele ci ginaaw hôtel ba fala top mhm. légui na nag ñoy dugg ci biir dëkk bi bu ben suq ñëwé ne ko fexe naa ba Cheikh ak seigne Mbàkke am problème hmm. ne ko léegi loolu nag daal di koy xeeb ne fexe naa ba sëñ Moustapha ak gaa yi muy àndal daal ñu doon xëccoo ba daanaka dóorante nañ mu ne ko léegi alors mu ne fexe naa bu monsieur ak madame ñu ngi doon xuloo mu ne ko viens ici <laughs> lool laa soxla waaw donc ma jël siwaat mooy tënk nañ ko ma nga ñu tëraloon ca ginnaaw suqam yi li fi doon xew lépp suq yee waaye suq it soxla yi lañ soxla ndax mun luñ konkal yi dara. jërëjëf seen laa jaam sala yi. yaa Seyda. waaw jërëjëf Oustaz mel ni li Cheikh wax rek. lu am solo Cheikh yaa Seyda. Hmm. xam nga macha allah da borom xam-xam dama bëgg sa laaj bi nga ekk ko. Ah. dafa am lu mu tudd léegi yu am solo. ay ay ko mu dem bàyyi ko mu dem hmm. waaw eh, jërëjëf dafa wax ni. Hmm. maanaam jàngale mi ñu war a jàngale koor dañ ko war a jàngale ci façon boo xam ni nit ñi dinañ ko dégg foofu la ñu toll léegi. nekkatul rek yem ca la'allakum tattaqun pour ñu ragal yàlla noo mais wàcce ko comme façon bi nga xam nan nga ko jàngalee. Mhm. ma dégg ci ñett bu njëkk bi mooy euh, yërmande ah. ak maghfira mhm. nga firee ko sutura. bu mujj bi mooy at minan léegi man kon damay laaj oustaz ndax ñun ñu ngi woor parce que su nekkee nee yow koor gi daf ñuy jàngal ñoom yërmande muy benn daf ñuy jàngal ñoom sutura mu mel ni. ñaar yi moom bu ñu tegee xool société bi nu ñuy dundee ngay topp aussi actualité yi nga xam ni yaa ngi dégg ñu koy traité ci plateau yi ñu defe naa traité nañ ci yu bëri yi xew oustaz dañ naan kon ndax ñun ñu ngi woor wala ni ñuy wooree baax na parce que tey boo xoolee xaw went sutura gi ak toroxalante gi ak weerante gi ak xeexante gi law sax ba laalaale ñi nga xam ne par exemple ñoo docteur yi nga xam ni ñoo war a faj doomu aadama yi yaakaar naa nag tey bu ñu nee docteur yi feebar nañu malaat yi dañu am problème kan moo leen di faj laal laal ba laal li nga xam ni moom mooy diine ji oustaz léegi ma bëggoon xam kon koor gi nan nan nga koy gën gën a jàngale jàng ba bi ci des mooy seytaane miñ naan dañ koo tënk tënk boobu nan la ñuy tënkee seytaane parce que li Cheikh wax na dëkk bi dafa gën a jax koor gi mhm. kon seytaane nan lañ koy tënkee oustaz waaw <laughs> jërëjëf tënk de ku ne xam na ko mooy yeew la ba nga ne ngodd sànni ci ginnaaw otel ba nun lañ ko def moom seetaan wax dëgg yàlla addis ba wér na ne tënk nañ ko ñiñ tënkul kay mooy booyam yeeg ñim jàngal ak ñim ñu ñu leen tënkul waaye moom moom tënk nañ ko wax dëgg yàlla gobi waaw <laughs> dégg léegi koor euh, su fekkee ne noo ngi ci biir te di ko def mm-hmm. alayhi salaam daa waxoon ne من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بس بشيخ مبكي ووري ولا مورخ جوار أم كل دقل ساغا يونت من أنا بوفايو من غانا نروح دقل ها واو سيركو هذا سيكلاشو طيب. أبيمون واو سابولين دي دفع دارا تي كورغي قصلا ولا ساغلا مبا دورلا بوفايو رك دانا كنان غنو دقل ba demee ci démbi démbi yëf yi mhm. bi yonent yàlla Isa gane àdduna mhm. euh, digganteem yaayam mhm. dafa waxoon yaayam yaam ju am wax ju am solo yaayam da koo leew jëm ca dëkk ba ne ko boo àggee maa ngi lay ñaan bul yëkkati sa kàddu ku la wax rek ne ko inni nazartu li rahmani sawman falan ukallima al yawma insiya débat boobu nga may woo duma ma ci fekk ndax damaa woor. Mhm. dëgg la. danaay faral di nettali sëñ Mbàkke Sylla. yal na ko yàlla yokk wér. ku baax ñoo ngi koy nuyu bu baax. damaa ñëw rond point Colobane. Mhm. te boobu mënu ko maa dawal. ba léegi sax mënu ma. waaye ma koy wër jenn waaye yàkkamti. ba sun ot yi daanaka laalante nañ mu génne bopp bi ci biir koor gi daal di ma yuuxu ni ñu yuuxoo ku dawal dawal bu baaxul. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. Ah. waaw.